jërë ngeen jëf mbokki internet yi xibaare yi nag ñu àddu ci li nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak ay mbiram ak avocat mbiré di maître Ciré Clédor Ly l'arbitraire a atteint ses limites noonu la ko journal bi lay di yoreer bi titré maître Ciré Clédor Ly lance un appel pressant pour la libération immédiate d'Ousmane Sonko muy nag kàddu yoo xam ne moom maître Ciré Clédor yi gën na ko eh, di sàkku nag ñu bàyyi ca na mu gën a gaawee client bi di Ousmane Sonko nag wér-gu-yaramu Ousmane Sonko mu ngay wëy dëggante lottu euh, niki démb ci guddi point que euh, ñi nga xam ne sax ñooy ay avocat am wala ay médecin personnel am nekkatu ñu ñu autorisé ngir ñu mën koo teggat nee nag jot na ñu rappeler que ñu ngi wax ki nga xam ne mooy le leader le plus en vue de l' sénégalaise maanaam ki nga xam ne moo mënees na ko jàppee leader bu opposition fële ci réewum Sénégal boo xam ne nag mu ngi ci benn risque manifeste pour sa vie maanaam jamono jële toll na foo xam ne dundam xañ na ca nee nag dañoo eh, ko évacué woon fële nga xam ne moo di ci prison bu sibi xotaan eh, gannaaw bu mu di amee benn perte de connaissance yóbbu ko fële ca l'hôpital wala sax Euh, interné ko ca pavillon teranga bu hôpital principal waaye nag euh, loole yëpp gannaaw euh, ni nga xam ne wér-gu-yaramam mu ngay woy di gën di njortees nañ ni ay ndigal jog na ay instruction maanaam ay ndigal waa buñ ko mën a waxee lool ngir nag moom mile di Ousmane Sonko ñu génne ko foofu ca l'hôpital delloo ko ca prison ba nga xam ne fa la nekkoon ay avocat am nag Euh, daal di naqarlu bu baax a baax décision bi ni mel euh, biñ naa sax buñ s'appuyer ci li nga xam ne mooy euh, droit de la santé waaye sax obligation d'assistance à une personne en danger ak aussi li nga xam ne mooy la responsabilité inhérente à la mise en danger de la vie d'autrui bokk na ci nag insuffisance rénale boo xam ne daal nañ koy traité kii di Ousmane Sonko ci contexte boobe nag Euh, le président Sonko euh, amaat beneen yoon sombre waat ci li nga xam ne mooy comment euh, ba ñu sax transféré ko en urgence ci li nga xam ne mooy service de réanimation bu l'hôpital principal boobee gannaaw nag moom ba mu jëlaatee connaissance rek def ko informé ne moom mi di Ousmane Sonko sentiratul benn yoon li nga xam ne mooy la paralysie de toute la partie gauche de son corps wala sax daf ko informé ne moom mu ngay sentir ne wetu càmmoñ daal yëgatu wetu càmmoñam yëgatut ci dara maanaam paralysie daal bu mat sëkk la yëg ci wetu càmmoñam googe moom Ousmane Sonko ba tey euh, muy doon euh, euh, dund ak ay injonction yoo xam ne mu ngi ko jote woon ci ay parti yoo xam ne dañ ko dafa nekkoon des parti des injonctions yoo xam ne mu ngi ko jote woon pour des perfusions urgentes moom nag nee na li nga xam ne euh, mooy wér-gu-yaramam niki démb dafa gënoon a lottu ba mu waral sax mu dem ci benn euh, léthargie profonde euh, toute la journée du 22 aut foofu ca l'hôpital moom nag bi nga xam ne mu ngi quitté hôpital boobee tiit na ba yegg ci lool moom milieu di maître Ciré Clédor Ly muy xam ne rek ne boobee nag loolu ma waral sax mu alerter l'opinion publique di xamle nag urgence bi nga xam ne am na ngir ñu libérer kii di Ousmane Sonko d'autant plus nag moom dafa nekk un candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ko demal fileek juróom-ñaar ci ay euh, les yi nga xam ne nag subir na ko ak risque imminent pour sa vie euh, ci indifférence bi nga xam ne am na euh, waaye nag ci risque indifférent de ceux qui détiennent le pouvoir maanaam Euh, tekki tekkaaral gi nga xam ne euh, ñu yor nguur gi jamono ji moom lañ ci amal noonu nag loole dina gën a aggraver li nga xam ne mooy l'histoire euh, su fekkee ne nag dafa am benn reñ bu jël bu nekk ci yoonu jeex mu ñu bañ nag daanaka daal caché derrière l'état laxatu ci ginnaaw état de droit wala d'autres perceptes Euh, préceptes fondamentaux moom nag mu ngi woo ñi nga xam ne ñooy ay kilifa ñu vérifier état de santé bu président Ousmane Sonko te libéré ko ci nu mu gën a ndax nag dundam moo nekk en jeu jamono jëlee situation bu Cheikh Bara Ndiaye naka noonu Hannibal Djim waaye tamit nga xam ne ñoom it ñi ngi nekk en réanimation ay fan a nii euh, ñoom tamit également seen situation euh, jaaxal na ko ba yegg ci lool Bassirou Diomaye Faye Amy Dia Fadilou Keita Maimouna Dièye entre autres tamit ñoom. daal euh, daanaka mënees naa wax ne ñoom euh, amaguñu euh, droit ñu juger leen ci délai yi nga xam ne mooy délai yu raisonnable wala ñu libérer leen conformement nag ak exigence yu pacte international yu nga xam ne nag defa relatif au droit civil et politique l'arbitraire a atteint ses limites mu nekkoon maître Ciré Clédor Ly membre ci pôle d'avocat bu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom avocat la nekk membre ci collectif de défense du président Ousmane Sonko doon yëkkati ay kàddu nag ngir xam ne jamono jile fii wér-gu-yaram Ousmane solo tonk Ousmane Sonko toll ak tiit gu ma ca tiit bay sàkku ci ñu bàyyi ko ci na mu gën a gaawee jërë ngeen jëf mbokk internet yi mu nekkoon ci xibaar ci bile vidéo jox leen dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar ci yeneen i vidéo laataa loolu war leen di like war leen di abonné ci seen chaîne DK 221 14 régions du Sénégal fa leen mënta nekk diaspora kenn demal ngeen cant ngërëm ñeen na leen ñu leen wax ne képp ko am na gànd ci page bi te abonné goo ñu leen ñaan nga abonné ak su ko la defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ci ñu ko njëkk a jot si jërë ngeen